yee la wax ma puus sa kanam yaa bëgg événement <laughs> <laughs> alors tu es prête oui, je suis bu fekkee téléphone bi disponible na mën nañ ñu ko jox allo allo allo je pense que ni nekkagul ci ligne bi mais mën nañ ko xaarandi ba tey parce que euh, on cherche à le joindre. allo ngi ci ligne bi allo. allo allo. allo bu ñu mënee yokkal retour bi fii alo allo. pense que. mais euh, teel stress bi nii rek. kii woote bu duggee nañu wax moom xàmmee na voix bi. kii woote nii bu duggee sax moom laa bëgg wax ne ndax xàmmee na voix bi je suis prête. oui je suis prête voilà. Hmm. da nga stressé nii ba tey. bu xew prix yow. <laughs> Delda ah. daale bay suufaat ki daboon ma joogu jaay diggante baar sannu guub calo yaaju baay dem looy dégg ci suuf yow allo allo allo allo ah je pense que mi ngi ci ligne bi parce que mm-hmm. euh, j'entends une voix ci suuf Euh, asalaamaaleykum la 2STV. allo la Sen TV. allo. la Sen TV. salaamaaleykum. Euh, salaamaaleykum waa Sen la Sen TV man la Papa Djibi Ba. depuis uh-huh. Dakar. alors euh, père dañ lay dañ lay dañ léegi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu d'abord <laughs> ah, plateau bi yëpp a ngi lay nuyu léegi dañu lay bàyyeeg Amira mm-hmm. donc yéen ñaar ngeen waxtaan. <laughs> Yoff tu es prête. alors salaamaaleykum Sen TV. waaleykum salaam maa ngi leen di gërëm ci li invitation invitation bi ngeen invité. Uh-huh. di gërëm kilifa bi. Uh-huh. allo. waaw dama bëgg balaa Amira di wax ma gërëm d' abord. Ah. ngeen invité bi ngeen ah. invité. seen TV. Ah. di ko di ko rafet rafetlu bu baax a baax. merci beaucoup di jiital nuyoo bi seen président euh, directeur Bougane Dany Guèye. merci beaucoup euh, di rafetlu aussi euh, émission bi. Mhm. rendez vous mu ngi woon émission bu rëy àddina gépp di ko seetaan. dëgg la merci waaw maa ngi jóge Suisse bu yàggul ndax Suisse laa basé ñëw naa maa ngi ni Dakar jamono yi. Mhm. sama attaché de presse Abdoulaye Thiaw woo ma ne ma déglu nga xale bi way Chéri li ci kontaan trop trop di ko rafetlu. waaw nga xale bi ni mu woyee ma su vraiment vraiment daf ma dama ko lu trop trop moom Amira Abel. Ah, di ko ci ñaanal yàlla nag te xam ne lii mooy Sénégal. Mm-hmm. waaw lii mooy Sénégal ndax il faut assurer la relève. Mm-hmm. waaw di ko ñaanal yàlla lii mu jub ko ndax waykat yi bari nañu waaye bu dee ba jël sama mos way ko. dëgg la fierté la ci man wax dëgg yàlla. fierté na ci man ba di ko ñaanal xam naa ne way bi sax moo ko mag ndax koy ba ma koy boobu j'avais quatorze ans. kon war naa doon a doon léegi ci quarante ans kon yàgg na du tey. ayca dañ lay bàyyeeg moom léegi dañ lay bàyyeeg moom léegi père. du ñàkk ni moom am na lu la bëgg laaj wala yow am na loo ko bëgg laaj. ci ci réalisation. waaw maa ngi déglu maa ngi déglu léegi moom mi ngi nii Amira euh, Pape Djibi. Amira ayca. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. maaleykum salaam Amira na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. ah oui. kontaan naa de. jërëjëf may ñoo ko bokk. le plaisir est partagé xam nga te le Sénégal ci jàng. tout d'abord je suis contente que que nga dégg woy bi nga kontaan si. loolu sama fierté la donc ça veut dire que ça veut dire que li ma def c'est acceptable quoi alhamdulilah donc je dis. waaw di la ñaanal yàlla nag parce que li mu yàlla la jit waaw amiin nga nga ñu jàppale na Sénégal yëpp jàppale te xam ne lii mooy Sénégal mhm. dëgg la merci beaucoup allo allo léegi léegi père bëgg naa nga téye tuuti parce que dama bëgg jox jox Amira version originalu chéri chéri koko bi waaw alors ñun ñëpp ñu dégloondoo ko ensemble d'accord ayca <laughs> d'accord mu ne ñu déglu ma doyal ñëwal euh, ñu ñu ñu waxtaan ak suñu papa ji tuuti parce que il faut que bu fe bu fekkee mi ngi ci ligne bi ba tey allo. aloo allo. alors bii mooy la nouvelle version mais avant ñu ñëw ci nouvelle version bi euh, bëggoon naa un peu euh, ñun peut-être way bi jiitu na tuuti suñu juddu mais bëggoon naa un peu nga wax ñu ci ban ci ban groupe nga ko waye woon star band la woon wala number one la woon. Star Star Band laa ko wooye ok ah, Star Band. waaw en ah, Star ah. allo allo. ayca xam naa ni euh, ñàkk nañ ko deggante bi moo moo neexul donc vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax. ci ci que Star Band moo jiitu number one ak Papa Ibe Kassé Papa Alioune Star Band moo jiitu number one. morceau premier album bi njëkk def Star Band. Mhm. allo allo allo. waaw. allo. waaw maa lay dégg maa lay dégg. Ah, donc euh, morceau bi Star Band la woon. waaw Star Band la woon waaw. Ah, donc musique ba musique ba na mu demee woon jamono jooju ak ni mu demee jamono ji y une très grande différence. y a une très grande différence waaw musique ba lu mu demoon bu njëkk. Ah. ak ni mu demee léegi. Euh, wax dëgg yàlla waaw ak euh, waaw. Star Band la woon waaw. Mm-hmm. entre waaw entre soixante onze soixante douze ko lan lan def album bi mm-hmm. waaw. waaw musique bi a beaucoup évolué sincèrement nga xam ne jàmbaar wax dëgg yàlla jàmbaar lañu mhm. ndax lii moo lay wan ne musique baa musique sénégalais bi dox mhm. li leen doon yàlla nag mu yaatu mu yaatu ndax Sénégal mooy yaatal dëgg la te lii bi def yàlla def nga ba àdduna ñëpp ñu koy déglu mhm. waaw wax dëgg moom amira kon yàlla yàlla dëgg la mu jik ko nag amiin amiin il faut assurer la relève ñu ñaan aussi les grands les grands noms de la musique sénégalaise ñu jàppale xale yi waaw ndax àddina jokkoo la fi ne waaw waaw àddina jokkoo la te loolu Sénégal. ayca merci def lu baax wax lu baax. waaw ah. lépp waaw dëgg loolu àddina te mooy Sénégal. dëgg la merci kon def lu rafet ñu ngi ko rafetlu bu baax a baax a baax. merci beaucoup waaw di koy ñaanal carrière bu bu bu am solo ñëpp jàppale ko. amiin xam ne loolu Sénégal. amiin waaw kontaan nañ ci bu baax rafetlu ko bu baax a baax. di leen ñaax Sénégal yi di la di nuyu waa Sénégal yi yëpp xam ne xam naa ne na moon ngeen waaye maa ngi nii ndax Alioune Ndiaye Alioune Ndiaye naan picc nga ci kaw xel maa ngi ci suuf. mais loolu. waaye li nga xamante ne moo ma taxoon di tey muy sama tournée présidente ma bëggoon ñaax ak Sénégal yi ci li Sénégal li président wax. ànd ko médecin yi. Mhm. waaw nañu raxas loxo yi tey tey fàggandiku. yàlla dimbali ci feebar bi di coronavirus yàlla na ko fi ci barke Seydina Mouhamad. sallallahu alayhi wa merci beaucoup xam naa ne bëgg nañ la am ci ci plateau bi du ñàkk semaine bii di ñëw. Euh, dinañ woo incha allah bu ko defee. Euh, les mm. nostalgiques euh, fàttaliku un peu yi nga xamee ni defoon nga ko fi ak waa Star Band ak waa Number One. donc semaine prochaine du ñàkk ñu dalal la ci plateau bi parce que xam naa ne suñu ay yaay suñu ay papa fi ñu toog. ils sont vraiment nostalgiques <laughs> merci beaucoup. waaw waaw dina loolu dina ma dinaa ci dinaa ci loolu dina ma dinaa ci kontaan ñu leen di gërëm leen yéen waa Sen TV. merci beaucoup. ak Bougane bi nga xam ne mooy directeur bi moom Bougane Gueye. Mhm. ñu bëggoon te xam ne seen émission bi émission bu rëy la ñëpp koy déglu. Mhm. rendez-vous koy déglu. Mhm. waaw dinaa ñëw bala yàgg dinaa avant ah, dinaa ñëw. balaa yàgg dinaa ñëw ci plateau bi dina yaatal ndax indi dama indaale àllum afro suisse indaale dama bëgg indi waa Suisse yi mhm. ñu ak le peuple mhm. loolu bokk samay taxawaay kon bokk loolu dina baax ma ñëw ci plateau bi gën a yaatal ngeen jox leen exclusivité bi incha allah yéen waa Sen TV incha allah merci beaucoup jërëjëf a naa jërëjëf kontaan a bu baax jërëjëf toutes mes félicitations vraiment sincèrement toutes mes félicitations Amira jërëjëf merci et bonne continuation ah ci kaw ca kanam rek jërëjëf ah sama xol dafa sedd ça te motive ouais ça me motive mm. ça ça me pousse à vouloir persévérer davantage à ne pas vous décevoir yéen ñëpp parce que yéen ñëpp vous m'avez montré que que li ma def ça vous plaît quoi donc des na beneen surprise mais boobu xam naa euh, suñu surprise la ñun dañ ñu koy may